wàllum dëkkuwaay yeeg yeneen yu ni mel euh, état wu Sénégal war na ci gën a mën a taxaw ngir gën ko ñongal gis nañu te euh, également ministre bi di euh, Cheikh Tidiane Dièye démb wàcc na fa ànd ak député ba ngir xool gox yi waaye tamit dalal xelu ñi nga xamante ni natt boobu dafa daal di dal ci seen kaw Ami lu métti la jaara ñi nga xam ne avant ñuy tàmbali rek ñoo ci jot a ñàkk seen bakkan ñu ñaan yàlla xaatay leen àjjana te suuf woyof seen kaw ndax euh, mbirum catastrophe naturel moom yàgg na ci àdduna bi jaara mm-hmm. parce que même dëkk yi nga xam te ne ñooñu gën a avancé sax ay inondation daf fay am mm-hmm. loolu moom allah kulli xaar mënul ñàkk ndax yaakaar naa ne taw moom dépendrul ci nit wala dépendrul ci benn machine boo xam ne dañ koy laal mu dem mais ci mbirum yàlla la dépendre donc euh, te nawet bi léegi mu jeex en général moom gis ne septembre xiin taw xiinul taw lay doon parce que tàggatoo nawet lay doon maintenant nag à vrai pour man ku ci nekk nag wala sax yenn ci politiciens ñu ngi ciy buruxlu di attaquer état bi ak li ni mel mais pour man jaara dama koy faral gis nga mbir mel nii bu amee jaara pour man lenn moo war a nekk kenn ku nekk ñun. muy xool nañ ñuy def ba solution am mais pas ngay dénigrer wala ngay buruxlu di wax ay mbir yoo xam ne mën na ci ñàkk parce que mm-hmm. lan moo tax ku man solution daar daar la ñu soxla muy opposition muy état kenn ku nekk ñoom dañu fa dañu fa war a ut solution pour que véritablement lii mën a dëñ même bu fekkante ne mënul dëñ sax mais catastrophe yu mel ni mu bañ fi amati parce Euh, bu ñu seetloo li nga xamante ne moo fi jot am ci nguur yi yëpp passé gis nañ fi plan Orsec jaara ñaata milliards lañ jël dépensé ko ci li nga xamante ne moo di mënd mi et ba tey amuñu benn saafara boo xamante ne nemmeeku nañ ko ci mm-hmm. te bu fekkante ne dëgg rek moo neex yàlla mën nañ ne état bi nga xamante ne moo fi nekk tey jii euh, certes que ñoom ñoo fi nekk ñoom ñoo war a def ay jéego pour mbir yi wàññeeku wala pour mbir yi dakk parce que ñoom ñoo fi nekk te ñoom ñooy jiite mais boo dëgg neexee yàlla nekkul ñoom la ñoom ñoo war a rend compte li nga xam te ne moo di nawatu ren bi parce que 6 mois ci diggante 6 mois 5 mois kenn mënu fay lijjanti nawet nawet bi nga xam te ne dafay war a ñëw déwén pour man moment bi lañ ko war a préparer pour que euh, musiba yi nga xamante ne moo am jamono ji pour mu mën a am mm-hmm. donc nawet bi nga xamante ne moo am ren bi donc at ma la weesu lañ ko programme woon pour que solution yi mën a am donc bu fekkante ne jël nañ ay yenn mbir yi di ko teg wala di ko teg ci ndoddu état bi naan moo responsable pour man ay caaxaan la tegewul fenn moo tax nag léegi comme mbir mi am na ba pare te foog solution am ñoom ñi nga xam te ne ñoo di état bi ñu gaaw a gaaw ci nu mu gën a gaaw ñi nga xam te ne ñoo ci gën a loogale wala ñoo ci gën a sonn ñu xool naka lañ leen di soulager et pour man tamit jaara euh, bu ne mbirum inondation yi gestion publique bi pour man dafa dafa jot muy am transparence bu mot a mot sëkk comme ni ko honorable waxee léegi mm-hmm. ne xam nañ diw wala xam nañ salaire u diw am na ay mbir yoo xam te ne boo ko amee dafa lay leen dañ naan kii kat li mu am fan lu ko jëlee wala kii li mu am daf ko sàcc pour mu mën ko delluwaat ci li nga xamante ne moo di askan wi parce que mën nga dafa métti am na ci ñoo xam ne tey jii seen ay kër daanu na am na ci ñoo xamante ne nii ñaari nit yoo xamante ne ñàkk nañ ci seen bakkan et te loolu mënoon na ñàkk moo mhm. tax ma ne état bi jamono ji moom moo fi nekk donc na xool ay solution yoo xamante ne Euh, yu yu durable wala yoo xam te nañ ko mën a def laa laataa nawet bi di jeex pour que véritablement nawet bi di ñëw déwén incha allah ñu mën a teg ay stratégie yoo xamante ne dinañ mën a génne askan wi ci mbënd mi nga xam te ne la ñu nekk xam nga c'est bien boo ñuy defar ay tali ay goudron et tout ça mais il faut que ñuy suural li nga xam te ne moo di dëkkuwaay cadre de vie jara dafa nekk am am solo xam nga am na dëkkuwaay yoo xam te ne tey jii dëkkuwaayu ndox la am na dëkkuwaay yoo xam te ne boo fa nekkee allah kulli xaal ndox mi da la fay fekk mhm. mais taw bu métti bu amee rek da ngay gis ne mbir yooyu bëri yooyu dafa am du Touba donc man mi Kaolack nga xam te ne fa laa jóge presque démb guddi gi deux heures du matin ay midi 11h mi ngi taw am na ci ay koñ yoo xam ne dafa inondé ainsi de suite donc nañu dimbaliwaat bu baax a baax nga xam ne euh, moo di askan wi te tamit xaalis bi ñuy dugal ci mbënd mi jaara mm-hmm. ne ànd ak transparence bi mu sëkk képp ku ñu jox ñaar dërëm pour nga dugal ko fenn après na ngay rendre compte parce que euh, résultat yaa ngi nii ñaata milliards la ñu dugal ci mbënd mi mu ngi ni jëriñul dara tu as l'impression que lii ay milliards lañ ci dugal wala benn cent franc lañ ci dugal donc nañu yokkuwaat pour man prudence boobu la pour que véritablement euh, képp koo xam te ne war nañ la cee dimbale ñu dimbale ci ci ni mu gën a gaawee. d'accord mhm. ah, voilà euh, ministre baa ngi doon Cheikh Tidiane Dièye ànd ceeg euh, député Cheikh Thioro Mbacké ngir xool yi ñi nga xamante ni mbir moom dafa daal di dal ci seen kaw waaye ñi nga xamante ni dañoo loru ci inondation boobu la professeur mu mel ni ginnaaw ne nañu quarante milliards la ñu daal di dugal ngir xeex lépp loo xam dafa soxla inondation yi foofu ca Touba mais démb gis nañu daal mel daanaka kopp rapport googulee ñi ngi laaj ci fan la daal di jaar ndax démb mën na ma gën na sonal ñi nga xamante ni ñooy askanub Touba. waaw soxna Diarra wax nga dëgg démb démb gisaat nañ fi benn catastrophe naturelle. Mhm. noonu lañ ko mën a tuddee benn côté. fële ca Touba ñuy profité ci occasion bi di massaw tout la population de Touba. Mhm. ñi nga xam ne aussi ñàkk nañ ci seen bakkan di leen ñaanal yàlla suñu boroom xaare leen aljana. amiin mu nekk loo xam ne metti na booy xool image yi. Euh, da ngay gis ni vraiment métti na daal métti na trop trop trop trop trop. Hmm. que comme euh, ni ñu koy faral di waxee inondation dafa nekk actuellement benn mbir boo xam ne c'est un phénomène mondial ce qui veut dire que amul benn dëkk boo xam ne mën nga ni man dinaa ci mucc mais euh, dëkk bu ci nekk nag am nga peut possibilité jël li nga xam ni mooy toutes les précautions nécessaires pour waxuma nga mucc ci mais au moins. li nga xam ne war nga koo mën a nekkee victim mu wàññeeku c'est-à-dire que boo ci waroon nekk victime peut-être à quatre-vingt-dix pour cent de situation nga xool nan ngay wàññee mbir mi xool ne ah man kat pour cent de situation dinaa ko ci nekk victime mais li nga xam ne mooy cinquante plus yi dinaa xool euh, voilà euh, nu may defee ba jël ay jumtukaay yi nga xam ne dina ma mën a muccal mm-hmm. peut-être euh, ci loolu nga xam ne am naa ko ci chance léegi nag dafa nekk loo xam ne tey jii waa c'est bien beau ñu ne def nañ ci tant de milliards c'est bien beau aussi que les Sénégalais réclament la justice. Mm-hmm. ñu xool ne mbir mi kat war na am transparence war na leer euh, yooyu yëpp d'accord mais soxna jaara xam nga tamit mbir su amee li ci ëpp solo mooy nañ koy dénk ñi nga xam ni ñoom ñoo ci am xam-xam. mbir su amee nañ koy jox ñi nga xam ni ñoom la nekk seen spécialité. Mhm. Euh, tey jii nii ministre bi ñu jox wàllug assainissement loolu muy mbiram loolu mooy domaine am mais fi nga xam ni fa la mbir mi jóge problème bi dafay yàgg études yi dafa war a yaatu pour man. Mhm. actuellement dañuy wax inondation mais dafa am d'abord les causes de l'inondation ba pare parce que taw bi kenn mënu koo contenir munoo ni ah nangam lay taw dinaa ko saafara wala ndox bi bu ñëwee man am naa ay possibilité pour ndox bi jàll d'accord possibilité yooyu boo ko amee mais nan ngay def pour mën koo saisir mm-hmm. pour nga mën koo saisir il faut que nga bañ a jël benn sugu bi nga xam ni xam-xamam dafa màcc dem ci peut-être beneen domaine honorable moom nga xam ni xam-xamam dafa màcc dem ci wàlluk assainissement wàlluk ndox nga jox ko ko et que tey jii nii dañuy gis ni li nga xam ne c'était prévu mu nekk ay canalisation ci yenn dëkkuwaay je vais pas dire Touba seulement mais ci Sénégal gi yëpp dañuy toll ba benn moment boo xam ne on assiste à une croissance démographique remarquable nit ñi ñu ngi yokk munoo jël benn canalisation boo xam ne ñu ne la nangami mètre cube moo fa waroon jaar nga ba fa ay at ndox mi di gën a yokku mais ndox boobu noonu mënatul wala canalisation mënatul contenir ndox boobu benn ñaar type de sol bi aussi da ciy joué dafa am yenn dëkk yoo xam ne dañoo am li ñuy wax sol joor ñu koy wax sol sableux soo xoolee sol suuf soosu noonu quatre-vingt-seize pour cent ci suuf si day composé de sable suuf c'est-à-dire ndox suuf soo xam ne dina mën a euh, aspirer ndox bi naan ndox bi comme ni ñu koy waxee mais yenn dëkk yi dañuy gis ni ban la sol la donc pour ndox ba mën faa ñëw ñu naan ko ci saa si noo du mën a ne. Mhm. léegi il faut que ñu am ay possibilité mooy li ma def teg ay méthodes yi nga xam ni ndox bi bu ñëwee du fa taxaw mais comment se fait-il jii nag méthodes yooyu nga war koo def te fa nga xam ne fa nga waroon jaarale ndox ba mu nekk ay kër. 40 milliards la ñu wax cadre de bi dafay ñëwaat. mais nañ ci cadre de vie day ñëwaat nañ ci def nañ jël 40 milliards multiplier ko par 10 mu ne nekk 400 milliards loolu saafarawu ko ministre bi nii dafa war a lëkkaloog ak ministre bi nga xam ne moo yor lépp lu jëm ci wàllu urbanisme parce que dafa nekk loo xam ne tey jii nii d'un seul coup nii nii nii nii nii nañ koy wax di ko wax di ko wax mën nga ci indi ay saafara de wàññi peut degré de gravité bi d'accord mais pour ñëw d'un seul coup wala en deux ans trois ans quatre ans nga ni lii dina fi jeex non non. Mm-hmm. parce que mbir mi fi mu commencé moo yàgg. Mm-hmm. li nga xam ne peut-être bàyyi nañ ko mu ñëw ba taxaw moo yàgg te nit ñi tey jii nii bu ñu nekkoon dix jamono bi inondation bi commencé foofu noonu boo demee cent personnes dëkk nañ fa. cent personnes nga ni fii kat la ndox bi war a jaar nga ni fii kat la cent personnes yoo xam ne tey jii nii bu doon ci. ñaari kër la dix personnes yi dëkk ñaata kër lañ fa defar. mais mais professeur est-ce que jàppoon aussi du manque de volonté parce que euh, euh, waxuma nag ci nguur gi fi nekk parce que ñii six ñi fiy jaar nga xamante ñii def nañ fi douze ans ak yeneen yu ni mel est-ce que du manque de volonté parce que Touba ak lépp lu ñu fa mën a wax mbedd yi yaatu na même bu fekkee ne dëkkuwaay yi peut-être demeewul noonu mbedd yi yaatu na mënoon nañoo fexe ba assainir ko euh, ko de volonté manque de volonté bii nga wax mm-hmm. kenn mënu ko cee dindi mm-hmm. li honorable di wax l'état est au début et la fin de toute mm-hmm. tout un processus état boobu tey jii di lii bu amee premier ministre xam-xamam mu jëmul dem ci lii moom wàllu impôt yooyu la xam mais dafa am ay experts yoo xam ne ñoom ils sont destinés à apporter des solutions ñoom la ñuy woo état bi fi nekkoon xam nañ la réalité saisir nañ ko parce que experts yi dañu ñëw wax la ministre bi day jël les services compétent ñu ñëw teg ci table bi mhm. yow xam nga ni lii mooy saafara mais malheureusement li nga wax mooy am manque de mhm. lii mooy saafara dama naan naa indi des saafara provisoire ñu taf yëngal bayam taf yëngal moto pompe ak nangam ak nangam mhm. te yow xam nga ni ni xel ni saafara ko loolu saafarawu ko d'accord yooyu yëpp ay problème la yi ma évoqué mais pourquoi pas nga dagg ay yoon nit ñi def pour terre bi woon a ji mën a jaar fii dañoo wàcce ay kër. Mhm. nga dédommagé leen fii kat ma ma leer na fii nii pour ma assainir ko il faut nombre tel ci ay kër. dañoo mhm. war a daanu. Mhm. état bu bëggee kër yooyu daanu dañuy daanu. c'est comme wax nga ko yenn mbedd tuubaay yi rëy na. mais liñ naan léegi dañuy wax extension boo demee ci yenn dëkk yi euh, euh, euh, yenn foyer religieux yi da ngay gis ni am na ay de nouveaux quartiers. mais pourquoi pas ñu xool comment dédommager certaines familles yi nga xam ne ñoom ñu ngi ci biir ndox bi mais seeni place aussi war nañ fa mën a war nañ ko mën a exploiter pour assainir dëkk ba ñu exploiter donc manque de volonté boobu soxna jaara dafay mm-hmm. ñëwaat et encore une fois mën na nekk man li may wax man pour man l'impossible n'est que le possible vu par quelqu'un de médiocre mm-hmm. et état am na les moyens les moyens sont là même bu dee ñun amuñu experts